loo xam ne kenn ku nekk ci réew mi war nga ci bàyyi sa xel ndax réew moo gis dafa am nu ko yàlla bindee am lu fa suñu borom def ci waaso ci diine ci ay valeur nit nag boo wàccee sa ànd ànd boo yéeg mu toj te nit da xam sa bopp xam sa valeur culture ak sa valeur civilisation te li xew ñépp gis nañu ko mooy ñàkk xam nan ngay jëfandikoo xarala yu bees yoo xam ne dañ ko indi ngir mu jëmale nit kanam waaye indiwuñ ko pour mu tasaare lépp loo xam ne ay jikko yu baax yoo xam ne si lañu mooñ maamaat yi ba si ñun ñun waruñu yàq héritage boobu daf ci am wàll woo xam ne nag si kilifa yi la dépendre ak si njaboot gi am wàll woo xam ne état bi la dépendre ñun li ci suñu wareef dinañ ko doxal ba mot sëkk état bi fépp mu war a taxaw si di doxal réew mi jàmm di fi am ak respect kooku na xelam dal ci loolu l'état ne faillira jamais devant ses responsabilités bu ñuy wax yoof ne dëkk maam Limaamu bu ñuy wax Touba ne dëkk Sëñ Touba Tiwaawoon ñu ne Alaaji Malick ah Cheikh Omarul Fouti wax ngeen ko ak geneen ak yeneen muy lislaam boo xam ne bi muy dugg fii ci réew mi di Sénégal ëpp na junni at ak lu topp près de mille cent année yoo xam ne lislaam mu ngi ci biir Sénégal ñu koy doxal ci nii ñu koy doxale ba tey jii kon lislaam boobu war nañ ko sàmm ndax mooy lislaam bi ñu taamu mooy lislaam bi ñu xam te mooy lislaam bi ñu jig ñu indi leneen di ko jàngal sénégalais ci ci wàllu diine ci des nag mooy di leen félicité ci bés bu màgg bi bésu maam Limaamu di am mbégte si li nga xam ne indi na ko indil na ko Sénégal ak nit ku ñuul ci li mu wone ci àdduna moom imaam Mahdiou ah, loolu lu jara di yaatal la ak di jara di waxtaane a Lamine Laye porte-parole xalif général de Layène moom it ci noonu la feeloo njiitu réew mi gannaaw ba mu ko nuyoo sargal ko indi li nga xamante ni moom la xalif bi eggee réew mi kon yàlla mooy yeyoo ragal waaye mu am lu mu jël ne yéen ragal leen ko pour ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp wattaqu fitnatan ragal leen fitna laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa ndax bu ñëwee di yam ci bopp borom ñaka sabab waalamu na ngeen xam ne anna allah shadidul iqab yàlla kat ku ku tar ay fitna la ay ay mbugal la kon lu yàlla na nanu ko ragal nanu ko ragal crise des valeurs moo am même les valeur républicaines crise da cee am ndax man damay jàpp ku bëgg sa réew lépp luy fitna bu ko yéene sa réew fit na nit mënu caa nekk ba am candam mënul nekk damay wax ne dafa am waa ji wax ne l'homme a tout inventé sauf la paix day bàyyi ba nga dee mu ne la repose en paix day na waar l'homme a tout inventé sauf la paix bàyyi ba nga dee mu ne la repose en paix am na paix fu nga am ko ci sa bàmmeel da koy am ci sa dund fa ngay liggéey paix bi nga war a am ci sa bàmmeel wala ma mere ne la fous-moi la dans la séparation déedéet l'islam ne assalaamu aleykum que la paix soit avec vous loolu la l'islam rawe ñëpp jàmm ajjana daaru salaam la ko yàlla tudde président ñu ngi lay ñaanal yow mi yàlla dogal nga nekk ci boppu réew mi yàlla xam kañ la yàlla na yàlla defal jàmm kantanal la parce que itam wax dëgg yàlla nit koo xam ne ni ma ko waxee mooy capitaine bato bi du nu man mu neex mu naqari ndax xam nga ñaare nag ndeysaan boo fi waxee sax ñu ne dañu ko jox dara ay jox ku nu jëndul sama mënuñu laa jënd sama maam bu doon tane dañu koy jox ne ko bàyyil oote bi bàyyi na oto bi ñun duñ ko fi fekk waaye dafa bañ sëñ Tuubaa bañ ba ñu génn exilé ko maam Alaaji Maalik bañ ànd ak maslaam ya lii mooy Sénégal lii mooy sunuy valeur lii moo tax bàyyi lay oote ci noonu kon la Mamadou Lamine Laye porte-parole ñaanale président Macky Sall ngir rek yàlla sàmm ko waaye tamit dafal Sénégal jàmm ak yokkute